magal gi ren dafa ñëw ci contexte boo xam ne contexte métti la woon euh, ñëpp nekkoon sous pression xaj kenn ku nekk sax léeg-léeg di nga am réaction boo xam ne nekk bi nga xam ne mooy euh, mooy bi la gën a mais li am solo mooy lépp jàll na euh, yi bari na ko bëggee woon amee nañ ko noonu ñun ñëpp sant yàlla kon naa ne loolu rek mooy résultat bi mooy mooy li am solo te mooy dëpp ak li mu wax léegi ne mooy ñu sëriñ bi waxoon léegi kat li ñuy def lépp dañu koy dañu koy def rek ngir suñu diggante ak nit ñi waaye sëñ Tuubaa fàggu ñu lépp te foog naa loolu moom moo feeñ ci loolu moo feeñ ci moo feeñ ci dëgg li ci li ci am solo rek moo di euh, lépp loo xam ne dañuy dañuy dox di tëb wala ñuy dox di wala ñuy dox di wala ñuy dox di mbàkku wala ñuy dox euh, di ñaawlaate déedéet li am rek nañ ko nañ ko sant yàlla nañ ko nañ ko sant yàlla continuer di di ñaan euh, continuer di di ñaan waaye aussi continuer di di fagaru ndax liñ am lépp loolu loolu moo ñu ko may kon ñun ñëpp rek nañu maase sant yàlla ci xéwal bi nga xamante ne bii defal nañu ko ba si jàmm waaye buñ ci bakk buñ ci buñ ci tëgg buñ ci wanewu ndax amul kenn ci ñun koo xam ne doon na ci dara mbir nag boo ñu doon dara waroo ca bàq waroo caa topp ndax am sa ndam ndam lépp ndamul sëriñ Tuubaa kon nag lépp nañ ko jël delloo ko ci delloo ko sëriñ bi te nag ko delloo ci bi nag mooy ñu gën a wéy di ci ay ndigalam gën a aw ci yoon xam ne moom la xàlloon gën a wéy itam di topp li di nga xam ne mooy ñu tere kon noonu nii kat la ñuy sant la yàlla sëriñ bi danañ def noonu waaye jëru ndam jëru tënk daal suñu ndam ndamul sëriñ Tuubaa nañ ko ne di ñaan nañ ko def di fagaru ndax docteur wax na ko léegi ba tey ji ji mi ngi nekk ci suñu biir di baal ak ñëpp di di di di di baal ñëpp ak di dal di santaan rek waxoon naa ko léegi ci français ki nga xam ne moo di président comité d' organisation di sëñ Bass te ñun ñu nekk ci comité bi yëpp ñu amee ko ñu amee ko jëkkal ndax daf ñoo tànn ci suñu biir nawle jox jox ñu kóolute yëkkati ay moyens yooyu sëkk teg ko suñuy loxo te dem leen liggéeyal Serigne Touba ba loolu si naa ko waxaat ñun duñ daal lépp rek ñoom la moom ak Cheikh Mamadou mu taxaar kon ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ndax ki tax mu mën liggéey Serigne Touba kooku amul fayam si Ousmane ba ñu boole aussi teg ko suñu kanam Serigne bi yow itam ñëpp ñu lay sant ndax li ab taxar te wax léegi dëgg la li ngay jiite bari na li ngay saytu bari na composante yi bari na te bokkul waaye ci dëgg-dëgg taxante ñëpp ba ku nekk nga yor ko ci jikkoom ak sa jikko ji rafet ba li nga xam ne moom la si bëgg ñun ñu ngi koy am tey ji comité bi ñëpp dañu ànd bokk ndey bokk bàyyi kenn xamul sax kii fii la nekk wala kee kee fa la bokk ren jii rek mën nañ ci wan exemple bi nga xam ne moo dox suñu diggante ak waa commission santé seen laaj bu si teewal leen dañoo dem ba mel ne ñaari commission lañ sax ñaari commission yi benn commission la fa te commission yëpp noonu lañ noonu lañ demee kon sant yàlla gën a gën a suuxat loolu te gën a rek di ñaan daal eh, suñu borom kat nañu ba li nga xamante ne bii moom la suñu gën di bëgg ñun wax bu nekk bu koy am di jégalu encore une fois nag mboolem rëcc di ñaan yàlla fekke waat ko déwén di ñaan yàlla tam jàmm law ci Sénégal suñu borom jëlee mbas fii ci réew mi waaye jëlee ko ci àdduna sépp kon ñu ngi sant ñi ngi gërëm ñëpp kon ñu daal di àgg rek siyaare euh, sëriñ bi su ko defee moom itam mu ñaanal ñu ñu tàggatoo te joxante waa rendez-vous ci lu aju ci wàllu organisation màggal bi ci awlaal bi ba déwén ak jàmm jërë ngeen jëf ñu leen sant ñu leen di gërëm